waaw non bala may ñëw ci loolu sax xam am na lu fi jaar lu bari surtout ni ko sëñ Mamadou Lamine Diante tiite bala may ñëw ci affaire finance bi ak yooyu. di wax rek ne ci bu dee sëñ Diante ñun jàpp naa ne euh, coalition Diomaye suñu xel war na dal suñu xel war na dal ci Ousmane buñ ko seqal xañ boppam lu bari. commençant ci bi ñuy teg yeew yi même bu amee ñu nekk ci partem doon kii mu ne leen gis naa ci ñoo xam ne sax am na ñu nekk biir Benno wala biir APR ñoo leen sax di gën a sérieux wala xeet yu demee noonu la preuve en est que Djibril Ngom ci ñun la bokkoon boobu waaye moom dafa wane dem na ba xañ boppam place bi joomaay nekk su fekkoon ne bëgg na ko parce que Macky waxal nañu boppam ne moom suñ ko déglu woon Karim dana bokk Sonko dana bokk Karim a tout fait pour bokk Sonko lan la def pour bokk sama jëmmi bopp jarul ni jalgati constitution kon jàpp naa ne sur sa plan euh, du jafe beneen bi mooy ñi ëpp ci nit ñi jàpp naa ne mat naa tiit mais jàpp naa ne jarul tiit trop parce que boo koy laaj sax di ko revendiquer bu la gars yi waxee ana wàll ñoom menace la capriceuse wala Cheikh Wade maam ana waa alaxira looy wax moo tax ci côté boobu du ma ci tiit trop mais ci côté Siré par rapport ak euh, élection yi xam nga dañoo amoon élection yoo xam ne dañu tolloon ci sept million trois cent soixante onze mille trois cent quatre vingt deux li ñu fa yóbbu lan moo doon inscrit yu bees bees yi ci Sénégal yëpp Macky Sall au ñu bind deux million waaye li ñu bind ci euh, Sénégal ak étranger mi ngi trois cent trente quatre mille neuf cent seize bu dee mille ci Sénégal 306 095 28 821 étranger laaw foo xam ne 2 millions maanaam ñun 9 millions la ñu waroon a nekk instant bi ci sénégalais yoo xam ne tey bu ñu voté woon ñu gënoon a ful lool. Ah, dañ ubbiwaat. Euh, dañ koy ah loolu laa yaakaar beneen bi muy comme ni euh, Siré wax ne ñam naa ko neex na comme ni sénégalais yi ñam ci 2022 bi bañ a jox lépp pouvoir bi yëpp mais nag sénégalais du maye bopp rocc làmmiñ bu la mayee lépp nag ba gis la nga baadoo la comme ni Macky Sall def ci lay doog a ñëw te fi boppam mais tànk mi ngi am njort gu rafet ci yow daf lay dolliwaat jox la moyen yoo defee li nga bëgg comme ça doo am lay su ma ñëwee nag euh, ci Moussa Diakhaté man dama jàpp ne moom ku nekk waroon a wax ba mu des moom Pape Diop lan la ñu wax askanu Sénégal ñoo dem comme fi ngay waxe waat mooy bi waa ji jaayee baadoo la ne Sénégal wan ko seen bopp jox opposition 83 députés yaakaar na pouvoir moo amoon 82 députés. Pape Diop ne ñu président amul majorité liggéeyam day gàllankoor moo tax man Sénégal yéen ñi ma joxoon pour ma nekk ci opposition bi dem naa dolliku ci ca moom. tey moom moom moom moo bokk ci lu naroon a nërmeel état xam nga nit day logique jusqu'au bout. Mm-hmm. dama dama bëgg constant Moussa Diakhaté loolu moo ko manqué. si réduction de compte comme ni ko gars yi waxee gis nga Siré finance dafa évoluer de mais gars yi càcc la lañ joon sàcc maanaam jàppoon nañ ne duñ jógee ci réew mi maanaam yow am na càccug maa tey goo xam ne nii maanaam mënoo ko sax comprendre tibbee kaw di tibbee suuf yor ay villa yoo xam Ablaye Sow saw demal xool kër Kaffrine am rek Mansour Faye demal xool kër gi nekk nga leen la ëppaleeg nu mu tëddati Bango. ak kiy sàcc ci këram xaalis. ak yoo xam ne nii danay fàng beneen bi mooy pôle judiciaire la et financier mooy kii bi hmm. loolu wuute naa ak CREI mais am na yeneen bagages yi ci nekk yoo xam ne même bu dee euh, finance évoluer na parce que CREI malgré li affaire u coxor la xam nga foofu la euh, président Diomaye wuuteeg Macky Sall hmm. d'ailleurs sax yaakaar naa ne même Abdou Diouf mi fi andi woon sax Macky la ko ci gën a sadik maanaam jéemu la may benn côté boo défendre sa bopp mais ni mu ko defee mooy yëfu yàkkamti yoo xam ne nii benn Pape Mamadou Bouy bu taxaw jàkkaarloo ki magistrat bu doon tare tare civil sax dañuy dañuy réer mais boo xasee ubbi pôle judiciaire et financier maanaam ay expert comme ci ni nga xamee ne noonu lay amee France da nga gis sax koo xam ne expert la ci matière finance ñëw solaat beneen bu bu mën a nekk magistrat am na fa def benn concours bu koy may parce que beneen bi doo dàq pool bi ci boppam mhm. am yooyu ci biir jubluwaay bi nag li ci gën a am solo mooy fexe ba ñii ñu dénk ñoom dootuñ sàcc maanaam ñii ñu yor nii parce que CREI yi loolu la waroon a jariñ mhm. CREI yi pour ñee la OFNAC pour ñun la malheureusement li nga xam ne maanaam moom lañu gis Sénégal mooy ñu dàq sàcc dàq dàqa wan ak yu demee noonu moo fi am li fi am nag ci Sénégal gi te mu doon lu rafet ñëpp war ko sàmm gis naa même Moussa Diakhaté wax na ko président bu dem demoon fële dafa waroon a wax ci gaal gi ñi faatu accident yi ñi faatu euh, ñi ci faatu ak école bi tijji man dama jàpp ne président ci boppam ba ci waxee démb li wax dafa dafa mëdd lépp comme ni ko sëñ Siré waxee nga xam ne yaakaarloo woon gars yi ñëw ne leen teg beneen affaire nangam xam nga discours de vérité maanaam jubbu bi la fal soo ko watee mel ni Macky Sall wala nga bëgg a mel ni keneen ak keneen ak keneen nit ñi dañ koy folli ñun xam nga lu ñu fale langage de vérité. Mhm. quand bu dëgg dee jot ñu waxante ko mooy li nga xam ne loolu lañu tàmm ak askan wi. état opposant Ousmane Sonko bu masaana wax responsabilité état ba pare ci ndaw ñi lay wëlbatiku wax ak ñoom may na leen ci boppam loolu waaye ñoom may nañ ko ci seen bopp ci loolu. kon la nga xam ne maanaam moom la président Diomaye pour man loolu rek mooy li nga xamee ne moom la mënoon a wax parce que faaw ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay ndee ndeeteel yi sax laa ko mën a wax ñooñu faw nga tegal leen lu metti am na ku ci def benn proposition mooy sawaay euh, Baye Samba Diam mhm. commencé ko ci gaal gi bi ñu koy defar mën a am ñu euh, defal ko matriculation mooy bi mu nekkee tum mooy tumu gaal gi mhm. ca suuf nga xam ne boo koy dagg ca eaux et forêt licence bañ lay jox foofu mu am lu ñu fa gravé loo xam ne dafay judduwaale gaal gi bi ngay dem ba war a defar gaal gi ba muy jóg service de pes wala yooyu dolliwaat la nga xam ne numéro yi bu nekkoon 4 chiffres day mujj nekk ba nekk 8 chiffres ànd ak lettre nga xam ne gaal gi borom gaal gi la yow bu ñu jëloon gaal gi sax jënd ko parce que am na borom gaal yoo xam dañuy yor gaal yoo xam ne pour napp ñëw tegal la benn 10 millions wala tegal la 5 millions dem ci maanaam gaal gi bu teeree Espagne bañ jàpp suñ ko xoolee espagnol yi wan leen ne leen numéro gaal sàngam dañuy ñëw jàpp si jàpp ki jàll loolu bu koy def ak surveiller léegi kenn dootul dem solution bu mag bi nag mooy liggéey dëkk bi ba nga xam ne kenn dootul xemmem naan sénégalais bu njëkk gabon gi lañu daan tukki ak i Côte d'Ivoire ak yooyu après la ñu continuer di dem France ba mu yàgg ñu naan ay Amérique ay nangam ak nangam lan moo tax ñuy dem Afrique ba yàgg yaakaar jeex fii ñu dem fee ak fee bu yaakaar ji nekkee fii rek. parce que mm-hmm. suñu alal la nit ñi toppi ah. Mm-hmm. suñu or bi jógee fii. moom la France di dajale ak feneen ak feneen France amul or daanaka si solam gisu ko ba pare nekk ñaata troisième producteur xaw ma quelque chose comme ça. suñu yëf la nit ñi doon toppi suñu fexee ba suñu yëf suñu zircon dematut wala buy dem day fekk ñoo ciy jariñoo ba pare suñu matière première bii nga xam ne tey coton ñu di ko ëcc fii ba nga xam ne ñoom jëwriñ bu ñuy ñaw ak tailleur yi fii lañ koy fekk. Mhm. suñu ay der laxunde yeeg naare maanaam li ñuy wax ay tannerie des fii ba nga xam ne fii lañ koy transformé. waaye suñu fruits et légumes fii lañ koy nale def ko jus fii la ñuy jaayee fruit bi waaye fii la ñuy jël fuusit ji li fuus def ko ay parfum de chambre mën naa ne waaw. Mhm. bis bu ñu ko defee yaakaar juddu fii kenn dootul dem wala boo dee dem da ngaa dem pour dem visiter ji pour yëg sedd bi ne ñam naa nees bi mais dootoo dem pour alal. sëñ Diagne mhm. euh, ma jeexal ko yow euh, ci wàllu reddition des comptes bi le président annoncé responsabilité Euh, donc sa sa xalaat par rapport à xam nga xam nga ci affaire reddition des comptes <coughs> euh, c'est vrai que c'était une promesse électorale parce que sénégalais ñëpp jàppoon nañu ne euh, dañ doon saax saaxee alalu réew mi. Mm-hmm. def nañ ci campagne wax nañ ne buñ ñëwee dinañ fexee ba lépp leer. Mm-hmm. Euh, bi mu ñëwee l'un des premiers actes qu'il a posé. ce que daf fekkoon corps de contrôle di def liggéey bu am solo am seen rapport waaye ñu téye woon ko. mën hmm. nañ ko publier. après publication rapport yi sénégalais yu bëri dañoo naan lu ñuy xaar pour jàpp gars yi. Hmm. mais comme président Bassirou Diomaye dafay bëgg lépp loo xam ne da koy def rek mu tegu ci yoon. Hmm. te ñun seede lañu bi ñu daje premier ministre ak pré ak bon Ousmane Sonko ak candidat Bassirou Diomaye Faye le lendemain bi ñu leen bàyyee ka